bu ñu fi jëlee information dañu fi bàyyi dañu fi bàyyi déformation te déformation boobu mooy indi fippu ci béréb boo xam ne fippu war a foon am kon dama jàpp ne euh, dellu ci erreur bi nga def loolu weesuwul jàpp naa ne tey daal 24 heures bu ñu ko taxawalee Walfadjri ne bu mu jàll loolu crime la musiba la rawatina ñu ne dañu dañu dañu rocci euh, licence am kon li ñuy ñaan mooy ñu delloo wal faj Walfadjri bu ko defee ñu continuer di servir askan wi di leen informer information yoo xam ne yu wér la loolu mooy indi jàmm ci réew mi euh, Mouhamad bi tey dinaa a nettali benn anecdote weer yi weesu dafa am lu mat ñaari téeméeri élèves yu ñëw fii ci buntu bi ñuy ñuy ñaxtu ñuy ñaxtu gars yi ñëw génne caméra jël leen ñu wax li ñuy wax ba géex mais bi ñu paree da gis ñu jaar na le di dem mu mel ne kon li leen taxoon jóg euh, am nañ ko parce que wax nañ ko fi ñu ko war a waxee kontaan nañu ñu ngay dellu seen kër pour pour pour pour euh, continuer lii. imagine wul bu fekkonte ne loolu amul bu boobaa xeer bu ñu njëkk a jot dañ koy sànni wax ju ñaaw bu ñu njëkk a xalaat dañ koy wax kon lu mel ne Walfadjri dañu ko waroon multiplier ci biir Sénégal tey mu gën a bari gën a yaatu ba nit ñi am fu ñuy waxee seen soxla yi bu ko defee ña ko war a dégg dégg ko. loolu nag bu fekkente ne barewul ba pare bi fi nekk ñu bañ ñu bëgg ko def li ñu ko def loolu dafay nekk loo xam ne catastrophe la ci biir Sénégal catastrophe la ci biir Sénégal parce que li ñu war a xam mooy Walfadjri ni muy doxee administrativement ak journalistiquement du doxiinu tëñax tëñëx ñu am xalaat di xalaat luy jëriñ askan wi ñoo fi nekk loo fi gis mu jàll ci écran bi bul yaakaar ne ci écran bi rek la jàll waaye seytu nañu ko jàngat ko ba xam ne luy njëriñ askan wi la waaye du leen lor ay nit ñu am xel am professionnalisme ñoo fi nekk ñoo xam ne demoon nañu jàngi biñ jàngee ba pare mënoon nañu jaare foofu dem servir ji feneen comme seen seen yenn yenn moroom yi mais ñu ne dañuy dellu Sénégal ñu servir ko bu ñu ñëwee nag environnement bi di demee nii jot na nag ñu taxaw pour orienter ba nga xam ne euh, ku nekk di nga mën a nekk di def li ngay li ngay def te doo joteeg sa morom Walfadjri wax nañ ko ay yoonu yoon PDG euh, bi di Cheikh ñas Niass wax na ko ay yoon yoon Sidi Lamine Niass itam daan na ko wax muy faj Walfadjri du contre le pouvoir mais contre pouvoir la contre pouvoir mooy lan mooy euh, artu mooy reeteet mooy wax fi fi doxul pour mu dox wax li jaaduwul pour ñu def li jaadu loolu mooy mission Walfadjri loolu nag mission la boo xam ne dañu koy continuer ba faw parce que bu ñu ko bàyyee dañu xamul lan moo ko war a mën a remplacer kon mission wu reeteet ak euh, artu pour jàmm mën a am loolu mooy suñu mission kon loolu tey bu fekkente ne Euh, dañ ñu ko bëgg tere ñun bu boobaa dañuy tëj ndax amul leneen lu ñuy def lu ñu mën a def lu bokkul ak loolu kon li may wax mooy nañu dabaatal balaa muy balaa béy diwee mbuus nañu rectifier erreur yi balaa muy weesu rectifier erreur yi mooy lan mooy daar daar ñi nga xam ne ñoo yore décision yi li ko dalee ci président de la république ak ñi nga xam ne ñoo ko wuutu ci wàll wi nañu rectifier erreur bi ñu delloo siñaalu signalu Walfajri ay nit ñoo fi nekk mais ay naxa naxa nekkuñu fi ay ñuy xalaatal réew mi xalaat bu baax ñoo fi nekk waaye nekkuñu ñoo xam ne dañuy tëñëx tëñëx wala di for foraatu di wax déedéet loolu euh, nekkul li nga xam ne euh, noonu la Walfajri di doxee kon yéen askan wi seen taxawaay dañ koy rafetlu ndax musulu musu musu leen ñu seetaan benn jamono musuñu leen seetaan musu leen ñu seetaan ci benn xew-xew bu dee bànneex yéen a ngi taxaw ñun bu dee naqar yéen a ngi taxaw ak ñun ba ca mujj lu jiitu tey rek mooy ñeen fukki at yi nga xam ne Walfadjri mu ngi ko doon euh, màggal ngeen ñëw euh, taxaw ci wetu Walfadjri jàpp ne seen bës la te seen bës la ndax bu ñu ko doon séddale euh, kenn du leen ci ëppale damay wax ne sax Mouhamad mhm. bu ñu doon seddale séddale Walfadjri ñi fiy liggéeye ñoo ci war a gën a néewle mhm. li ko waral mooy yow booy liggéey bu weer wi dee da nga ne ndaaw màggaay viré nañu. ngay xaar viré. mais am na ñoo xam ne dañ ciy ñax. fan sa bi seede lañ ci dañuy nekk suba ak ngoon di nekk mission Walfadjri te bu weer dee du tax ñu laaj dara. kon loolu tey yëfu askan wi nekk bi mu nekk yëfu askan wi moo ko waral kon euh, tëj wal Walfadjri mooy tëj mooy taf nopp bépp sénégalais tëj Walfadjri mooy fatt bëtu bépp sénégalais 18 million multiplié par. par par par euh, ñaari bët ñaata la nga taf bët yooyu euh, nga saañ noppa yooyu loolu catastrophe la boo xam ne euh, erreur la waaye li li gën ci erreur mooy ñu teel ko rectifier kon li ñuy yëkkatee suñu baat fii mooy ne ñu ngi artu li nga xam ne service public bi nga xam ne Walfadjri mu ngi koy def wóor na ma ne bu ñu ko bu ñu defee ba loolu amatul ci réew mi ba loolu amatul ci réew mi nga xam ne mbedd mi day nekk ci di saxaar di takk nga ngay génne loo xam ne lekk ay pain au la wala di naan lu sedd loolu bu amee la cay toftalu moo dul baax bu dul tey di ëllëg mais la cay toftalu du baax li may wax nii expérience moo tax ñu wax ko am na ay réew yu bare yoo xam ne gis nañu ko dund fa nekk fa te saañ nopp yi ak taf bët yi jafe-jafe yi nga xam ne euh, askan wi ñu ngi koy ñu ngi koy jànkonteel te amuñu fu ñu koy waxee amuñu ko fu ñu koy yëkkee looloo ko waral kon li Sidi Lamine Niass daan wax ne marmet la boo xam ne euh, il faut ñu ubbi ko pour coolool bi génn mu mën a mu mën a yëf yi mën a mën a baax loolu la kon ñu ngi artu di wax ne erreur la boo xam ne nañ ko rectifier ni mu gën a gaawee li ñuy laaj Mouhamad li ñuy laaj bariwul muy bàyyi leen rek ñu bàyyi leen ñu ñu continuer di servir askan wi loolu rek la nañu bàyyi ñu continuer di servir askan wi te Mouhamad dafa am loo xam ne dama yaakaar ne ñi jël décision bi bàyyiwuñ ci xel ginnaaw li ma wax ci service public bi nga xam ne Walfadjri daf koy taxawal imagine wul Walfadjri ñaata contrat la am ak ay partenaires ñooñu ñëpp nga xañ leen loolu te loolu dafay impact ci partenaires yi impact ci Walfadjri directement loolu rek ku ko xalaatoon war na xam ne tëj organe bu mel nii benn fan ëpp na am nañu ay partenaires yu nekk ci biir réew mi am ay partenaires yu nekk ci bitim réew ñu si ak ñoom ay pacte yoo xam ne dañu ko dañu leen ne waxtu wi wu jotee boobu jotee dinañu génnee eh, li ngeen bëgg ñu génnee ko waxtu wa jot loolu amul mu nar a mu nar nekk loo xam ne rek ñu ne dafa jeex. Walfadjri dañu ko bëgg a ci histoire Sénégal loolu catastrophe la war nañu ko euh, rectifier nu mu nu mu gën a gën a gën a gën a gaawee wala loolu catastrophe lay jur euh, ba ca topp Mouhamad ñeent fukki at yi nga xam ne ñu ngi ko doon màggal tey muy ñeent fukki atu euh, Walfadjri yi dañ ci génne ñeent fukki une yi nga xam ne ñoo njëkk a génn ci Walfadjri première une ba quarante mais boo ko xoolee ni Walfadjri mel tey noonu la une yooyu mel ni mu meloon démb noonu la mel tey te noonu la war a mel suba sinon rek leneen lay doon lu bokkul ak Walfadjri loolu mooy lan mooy taxaw di nekk la voix des sans voix avec X mais la voix des sans voix avec e. maanaam ñi nga xam ne bëgg nañu jaar ci benn yoon te amuñ mënuñu fa jaar wal fajri dafay tracé voie boobu leeral ko ba mu leer nañ ñi nga xam ne am nañu ka euh, soxla nañu kàdd yi ñu war a yëkkati amuñu fu ñu koy yëkkatee wal fajri jox la occasion pour pour nga def loolu lii tey boo ko xañee Sénégal xañ nga ko lu réeréeréeré loo xam ne musiba lay jur nañu bàyyi nit ñi ci seen liberté jàpp naa ne démocratie fi mu toll tey ci biir Sénégal permettre nañu ñu def li ñuy def jàpp naa ne démocratie tey ak professionnalisme bu fekkonte ne dañu woo dañu woo ñaar yooyu pour ñu juger li nga xam ne ñu ngi ko doon def diggante démb ak tey ba tax ñu faj euh, Walfadjri yaakaar naa ne du ñu gis benn benn benn erreur boo xam ne bu génn ci professionnalisme la boo xam ne wal Walfadjri def na ko kon lii tax ba ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñu ñëw taxaw nii di wax ni ñuy waxee nii mooy ne dañuy artu balaa ñuy àtte dañuy artu balaa mbéy béy diwéy mbuus dañuy artu pour wane ne du ñu danger te représenté wuñu représenté wuñu danger ci biir Sénégal dañu jàpp ne kenn waruñu am obligation wu ñu servir askan wi ci ni mu gën a matee ni mu gën a yaatoo xañ ko Sénégalais yi loolu ak jël Sénégalais yi suul leen ci benn pax wala tëj leen ci benn benn benn eh, prison moo ko gën a jafe moo ko gën a yomb loolu nee na du fi amee du fi amee waru fee amee yellul mu amee fi ci réew moo xam ne am na fu mu àgg tey ci ci ci ci démocratie foo xam ne waruñu ko delloo ginnaaw euh, boo demee bitim réew bu ñu la nee ban nationalité da ngay am fierté wax ci kaw ne Sénégal da nga koy wax bu leer nga ne Sénégal la mu cay tekk itam moo lay wan ne Sénégal marqué na histoire bu bu positif ak diplomatie bu positif ci bitim réew waaye lu tuuti nag moo ko mën a xajamal lu tuuti moo ko mën a yàq wax naa ko kenn sànq muy ree ma ne mën nañu mën nañ dem ci loolu ba bu ñu la laajee ne ban nationalité au lieu ngay wax Sénégal da ngay naan kenn du xam li nga wax te loolu lu ndaw rek mën na koo waral euh, Mouhamed bi tey kon dama jàpp ne tey taxaw bi ñu taxaw du fox moo ñu taxaw taxa taxaw fii du hasard moo ñu taxa taxaw fii mais réparer erreur ci ni euh, ci ni mu gën a gaawee moo tax euh, Mouhamed bi ñu taxaw fi SeneInfo International SeneInfo International